salaamaaleykum gars yi naa leen dal leen ak jàmm ci Sen Sports 221 gannaaw match de gala boo xamante ni amaloon na ko ni ki barki démb rek moom kii di Sadio Mané l'international sénégalais àndoon ci ak yenn ci xaritam rawatina sax ki nga xamante ne mooy international sénégalais bii di Mbaye Diagne Papis Demba Cissé ak sax El Hadji Diouf match boobule nag ñu gis ne kat ki nga xamante ne mooy Sadio Mané gannaaw bi ñu ko defee ba noppi moom daal dinay dégg maam jël décision tabaxal ñi nga xamante ne ñoo di dëkkam boobule di bàmbali nga xam ne fa la fekk baax ab stade boo xamante ne day ànd ak terrain synthétique nga xamante ne ndaw yi dinañ ko mën a jëriñoo Sadio Mané gis nañu ci match boobu mu doon match boo xamante ne dégg nga ñoom ñi nga xamante ne ay professionnel lañ di football ci terrain yu mag foofu la ci Europe ñu gis leen ñuy football ci terrain boo xam ne suuf la rawatina muy taw nag muy nekk loo xamante ni sax moom nee na daf ko namoon ndax lu ni mel jaar na ci Sadio Mané terrain boobu nee na ci la doore li nga xamante ne mooy football voilà kon dellusiwaat ci terrain boobu do di ci footballaat ànd ci ñi nga xamante ne ay xaritam lañ woon bi ñuy xale loolu nekkoon na loo xamante ne neex na ko trop waaye daal li nga xamante ne moo ëpp solo mooy gannaaw ba loolu yëpp passé jël na décision ngir dimbale waa dëkk boobu gannaaw yeneen mbir yoo xamante ne jiitaloon na ko ndax xam ngeen ne Sadio Mané tam waxoon na fa li nga xamante mooy ab lycée boo xamante ni bambal yi di dëkk boobule ak lu toll ci juróom-ñaari dëkk ci yëkko wër ñoo ngi koy jëriñoo waaye ab euh, hôpital boo xamante ne tabaxoon na ko fa te it ñu jàpp ne lu toll ci juróom-ñetti junni nit war nañoo mën a fajoo ci hôpital boobu jamono bii nag li nga xamante ne moom la jël décision mooy dal di dimbale dëkk boobu tabaxal leen ab stade boo xamante ni day ànd ak benn terrain synthétique boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo ndaw yi dinañ ci mën a nekk nag rafet loo xamante ni moom Sadio Mané toujours mu koy faral di na yëpp muy def nag defu ko pour Bambali daf koy def pour Sénégal waaye nee na lépp looy def rek il faut nga am foo tàmbalee te loolu sax moo jaadu li olof di wax bay ci sa weewu tànk loolu mooy li nga xamante ne moom la Sadio Mané di def kon nee loolu muy def yëpp mu ngi koy def pour Sénégal voilà kon moom loolu mooy li nga xamante ne jël na décision def ko muy tabax ab stade boo xamante ne day ànd ak terrain synthétique loolu dina nekk loo xamante ni dina am solo lool ci ndawi gox boobu boobule. gannaaw loolu nag dinañu wax ci mbirum transfert ki nga xamante ne mooy Pape Abou Cissé bi nga xamante ni kayiti xibaar yi biral nañu ne kat moom mën na dem foofu nga xamante ne mooy ca Italie ndax kat club bi nga xamante mom lañuy wax Monza nga xam ne dañoo monté ci li nga xamante moy Serie A bu Italy jamono bi ñu ngi defi pexe ngir signé ki nga xamante moy Pape Abou Cissé dal di koy jëlé fofu la ci Olympiakos Pape Abou Cissé am toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn jaar ci club bu melni AS Pekin avant muy dem fële nga xamante moy ci Europe am ci yeneeni club yi mu jaar ba ag fofu nga xamante moy ci Olympiakos gog nga xamante ni depuis 2017 ba légui mo ngi fay toj mom nak kéti xibaar bi biral nañu né jamono bi mëna fekk ji ki nga xamante moy ancien directeur technique am fofu nga xamante moy ci Italy ndax kat ñi xat xamante Monza dañoo tabu directeur technique bu bes koku nak moy ki nga xamanteni mom ci Olympiacos la doon liggéey kon xamna pa Abou Cissé bu baax a baax moo tax mu bëgg koy jëlee foofule di koy signal clubam boobu muy mu nek légui te muy Monza gi nga xamanteni dañuy soog monté ci li nga xamanteni moy première division bu Italie kay di xibar sax ñu ngi biral ne ki nga xamante moy directeur technique boobule du Pape Abou Cissé képp la bëgg signé waaye ñaari Guinéen yi nga xamante moy mooy Madi Camara ak adibou Camara yépp daf leen bëgg yobalé waaye daal club boobu moom pare nañu génnee xaalis ngir war a war ko def ci ki nga xamante ne mooy international sénégalais bi di Pape Abou Cissé toll ci 26 ans. ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Niakhate Ndiaye moom nag it xibaar dañoo biral ne gannaaw bi mu prolongé contrat am ak club bi nga xamante ne mooy Olympique Lyonnais moom défenseur sénégalais bi le dinañu ko daal di able fële nga xamante ne mooy ca Bastia waaye nag mu nekk loon boo xamante ne àndul ak benn option d'achat maanaam day dem ñëwaat. Bastia nag jamono yi nekk ci Ligue 2 bi kon ñoom nag gannaaw boo xamante ni prolongé nañu contrat wu ndaw bi la di Abdoulaye Niakhate Ndiaye toll ci vingt ans xëy na Lyon ko téye muy toog ban foofu la di xaar waaye dañu bëgg mu ami minute maanaam joué dal di am li nga xamante ni ma dégg nga mooy expérience bu baax a baax ci li nga xamante mooy ni football France di doxee xam nga moom ni ki ñaari at ci ginnaaw la demoon foofu nga xamante ni mooy ci tugal moom kii di Abdoulaye Niakhate Ndiaye waaye nag li ñu seetlu mooy mu ngi doon joué ak li nga xamante ne mooy équipe réserve bu Olympique Lyonnais gis nañu li nga xamante ne mooy xarañteef gi nga xam ne am na ko moom kii di Abdoulaye Niakhate Ndiaye boobu nekk ancien joueur Dakar Sacré-Cœur léegi nag prolongé nañu contrat am comme ni ngeen ko xamee ni ki ñaar ñaar jàpp ñetti semaine ci ginnaaw rek yàggul léegi nag dañu koy able ci Bastia googule ngir mu mën a dem ñëwaat pare wuñu sax ngir jaay ko dañ leen koy abal rek su ko defee bu dóoree saison bi ba mu jeex muy ñibbisi foofu nga xamante ne mooy ci Olympique Lyonnais ki nga xamante ne mooy Yves Bissouma nekk euh, joueur boo xamante ni Tottenham ñoo ngi ko doon topp fan yi yëpp kay di xibaar yi biral nañu ne jamono yi ñuy waxee ak yéen ci subaak tey gi mu ngi amal li nga xamante mooy visite médicale am ak Tottenham kon tey ji dinañu complété lépp loo xam ne aju na ci signature joueur boobule ki nga xamante ne mooy Florentino Perez dafa daal di yëkkati ay kàddu jëmee ko ci mbirum transfert Mbappé bi nga xamante ni coow lu bari la fi juróon moom nag niki démb dañ ko invité woon ci benn télévision mu wax ci lépp loo xamante ne aju na ci li mbirum transfert boobule ci tënk rek point yi nga xamante ne mën nañ ko ci yàpp mooy ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé moom nag nekkul koo xam ne dafa war Real Madrid nee na Mbappé nekkul moom moo war Real de amul dara loo xam ne ni lu ñu mën a tuddee war la moom moo waxoon ne dafa bëgg a jouer pour Real la waxoon nee na daf leen ko wax ñoom ay yoon yoon ne moom club bi nga xamante ni moom lay rêvé depuis mu nekk xale ngir football fat mooy Real Madrid ñoom nag loolu la ñu jàppoon waaye daal mbir mi dafa dem ba ci dégg nga maam dernier 15 yi muy ci fukki fan ak juróom daal ci la lépp changé te nee loolu yëpp li ko indi bokk na ci mbirum euh, dégg nga maam appel boo xamante ne dafa jogee ci président bu France dal di dégg nga maam nga xamante ne mooy Mbappé wax ko ne carrément bëggul mu génn club boobu nga xamante mooy Paris Saint-Germain bañ jógee ci nee na Mbappé ñu daal di koy invité mu dem Qatar wax fekk ji ñi nga xamante ni dégg nga maam ñooy ay dirigeant Paris Saint-Germain ci loolu ñu ne nañu tegal ko ay ay offrir ko loo xamante ni daal mën naa dof loo nit mu ne yooyu ay mbir la yoo xamante ni bokk na ci li nga xamante ni moo changé ki nga xamante ni mooy xelu Mbappé ba mu jël décision des foofu nga xamante ni mooy ca Paris saint waaye daal nee na moom mënul jàpp ne maanaam loolu yëpp wor la Euh, Mbappé mooy jël li nga xamante ne mooy décision te moom respecté na loolu le waaw ba tey moom itam mu ngi xam le ne ki nga xamante ne mooy Mbappé nekkul joor boo xamante ne moom day wax ne tëj na bunt yi ba Mbappé dootul jouer Real Madrid ba faw nee na déedéet loolu moom mosu koo wax te du ko mos a wax ndax kat fii ñetti at lu ne mën na fee changé waaye jamono bii ñuy waxee ak moom bëggul ki nga xamante ne mooy Mbappé ndax Mbappé bi nga xam ne moom la bëggoon mooy original bi waaye Mbappé bi nga xam ne moom la gis ci euh, dégg nga maam jamono yu mujj yi moom euh, moom kii di presse nee na moom soxlawul Mbappé boobu te fi ak ñetti at ci kanam neena lu ne mën xew lu ne mën changer motax du wax ne kii de Mbappé do jouer pour Real Madrid neena lool na ci ñëpp baye xel neena dal Real Madrid mom club la bo xamanteni paré pare nañu ngir signé bép jour bo xamanteni deng maam joueur bu mag nga way ci kaw nga deng maam understand né euh, club bi amul ben joueur bo xamanteni moko fay to kaw mo ne joueur boo xamante ni comprendre nga lool rek nga jouer pour Real Madrid mais amul kenn ko xamné di nga gëm né yow yaa féetoo ben club kaw ba nopi ñu lay signé né Real du dox ci loolu waxtaan bu gudd la nag waaye loolu yenn ci ay points yoo xamante waroon nañ ko ci mën a tënk rek gannaaw loolu dañuy continuer ci mbirum transfert ki nga xamante ne mooy César Azpilicueta bi nga xamante ni a gannaaw boo xamante ni kat lijjanti nañu mbirum Alves ba muy dem fi mu ne ni ki nga xamante ne mooy César Azpilicueta moom la Xavi bëgg jamono bi ñu daldi jubli ci ay mbiram ci nu mu a gaawee ñaari ati contrat nag moo ngi koy xaar foofu la ca Barcelone ki nga xamante ni tam mooy Serginho Dest kayiti xibaar yi biral nañu ne moom itam fii mu ne nii comme Alves day dem njortu nañu ne dina des foofule ci club boobu nga xamante ni mooy FC Barcelone Sergi Roberto moom it prolongé na contrat am day des kon dinañu am ñetti ne Roberto na jafe-jafe yi nga xam ne doon nañu moo taxoon ba ñu koy formé ba di koy yëgal ci équipe première bi milieu la doon football kon ñoom ñett ñëpp dañuy des foofu la ci FC FC Barcelone wala ñoom ñaar ak ki nga xamante ne mooy Aspilicueta bi nga xamante ni ñu ngi defi pexe ngir signé ko dal di ko yóbbu foofu la ci FC Barcelone. voilà gars li fi gënoon a fees tey jii ci tënkum xibaar continuer leen di abonné tey partager li nga xamante ne mooy vidéo yi su ko defee képp koo xamante ni abonné nga ci chaîne bi cliquer li nga xamante ne mooy cloche notification bi vidéo bi fu wàcc di nga bokk ñi koy njëkk jot continuer leen di suivre Sen Sports